فلا إله إلا الله andi moo doo fal faal yàlla daaloo nga yëngoo la ilaha illallah la ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah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 ñoo ngi ñaan fa dellu ñaanoo Cheikh Muntaxa yàgg fee ñoo ngi ñaan fa dellu ñaanoo Sëriñ am du mbuudu benn yàgg fee mbooloo mi jërë ngeen jëf ñu jégalu bu baax di siyaare Baay Ibra di ñaanale Sëriñ Xadim yal na fi yàgg lool tànd ko biir lii sëriñ bi moo ko sàkk woon ñu barkeeloo ko ci bis bi waaye ku ne xam na ne ñun dañuy jéem rek waaye Baay Ibra yal na la yàlla taxaw amin nga fees dell ak bi jaaw yal na nga dund bay ànd ak say sët sëtaat di liggéey ndax bu la neexoon nga ne ñu nangam ak nangam wala liñ la wax doo ko gëm waaye dañuy fekkante kër sëñ Touba ngay ñëw réunion dafa def taxawaay bu rafet waa de daayira Touba Sandarma de fu ñu taxaw nga taxaw fa kere ba taawub sëñ Mountakha taxawee yow yaa taxaw ci seen wet di leen leeralal loola dama ko fàtte maa ngi vidéo yi maa ngi lépp kon yàlla na nga fi yàgg te wér xañ na noonu waaye sant nan bu baax jërë ngeen jëf. tubarkalla sëñ Jili Baye Fall sëñ Jili Zikrullah waa nii rek lañ ko bëgg dee sëñ Adama mën ngaa ñëw tey daal kuy sikkarkat jege ma tey bisu maam Cheikh Ibrahima Fall di premier mai di vingt deuxième édition waaw na ñëpp bàyyi xel bis bi Cheikh Ibrahima ko moom moom moom lépp waaye bis bi da cee raw sëñ sëñ Adama sëñ Adama Seck isaan cey Cheikh Ibra la la ilaha illallah la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 la ilaha illallah Fall nee na ñi toog nii ci kaw mooy ndigal li laa ilaha illallah sëñ bi nee ngeen yéeg ku yéeg yokk waaw yéeg leen mooy ndigal nan jëfe ndigal laa ilaha ay góor tey murit tey Baay Fall laa ilaha illallah ñee na ñii nan yéeg na ñëpp yéeg sëñ bi joxe ndigal li jóg Baay Faal di fa ñëw laa wax ni laa ilaaha illallah jëfe de ndigal rek laa ilaaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa waa kuréel gi sëñ bi nee laa ilaha illallah. waa kuréel xasida gi ñëw leen. laa ilaha illallah. fa laa ilaha illallah.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 laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha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

faal yàlla la waaw du ñëw ne te lii du neen faal yàlla la nen du ñëw gaynde lay ñaan falta am nga ko leeri leer yu gando la lay ñaan falta am nga ko leeri leer yu gando am nga ko falta sañ nga bu lay soob muy nanga la ilaha am nga ko falta sañ nga bu lay soob muy nanga la ilaha barke maam Cheikh Fall Lamp sëñ bi sëñ bi daa joxe ndigal sëñ bi dafa bàyyi xel ci ni dafa am nan jëfe ndigal ku baax dafa am daayira sunu mbokki laa yéen yi fi ne amoon wóllëre ak sëriñ Cheikh Khadim Fall gis ngeen daaw prestation biñ fi def ñu bëgg leen a woo ñoom it ñu ñëw ñëw wàccaat fii def loolu ñu defoon ngir jëmm yàlla ak laa ilaha illallah ana waa ko Seydina Limaamu nañ ñëw waaw nañ ñëw ñëw leen rek lu mu tollu baax na ñu ngi ñëw dañu ak seegul laajal ma leen ah ñu bàyyi ba sëñ beeg si waaw ba tey ñooñ ñooñ suñuy gan lañu kon dañuy Modou Fall ana Modou sëñ Modou bisimilah tey kay sikkuru laa rek laa ilaha illallah rek wax ngeen dëgg ñu ngi leen di siyaare bu baax di ñaanal Serigne Doudou Makhtar Laay yàlla may ko fan wu gudd wu ànd ak wér waaye di fàttaliku tey bàyyi bu baax Baye Abdoulaye Thiaw Laye mu baax ma kooku li mu témoignage bi mu daan def ci Seexul Xaadim ñëpp dégg nañ ko man mii daanaa dem du fa di ko siyaara ji di dem ci sëriñ Seynu dem fa dem lu bare ñu ngi ñaan yàlla yokk seen leer waaye ni ko sëñ Tuubaa waxee rek nee na ku naan laa ilaha illallah bu ko kenn noonoo te yéen noo bokk lépp li ngeen bëgg dañu bëgg mooy tudd yàlla kon ñu ngi ñaan tabarkalla ñëw bii ngeen fi ñëw yal yal na ngeen fi yàgg ñëw ngir wëllëre jërëjëf kon ñu ngi leen di bàyyi xel sëñ bi ñëw rek incha allah ñu def prestation sëñ Modou. auzu billahi fas yéene tudd yàlla barki suñu am di xadi fall laa ilaha yaga baax laa ilaha illallah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 بجاي جبري لستجب سؤالي وبلغني مبلغ رجالي لا لا لا لا بجاي ميكائيل قبل النعمة والنقية لا إله إلا الله مثل عيس كرمة لا إله إلا الله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 لا إله إلا الله تضمن واجعل واجعل توسلي لمن يدعو به سعادة الدارين لا لا لا لا واغفر لي به لا لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله am li Moodu Mustafa yàlla daal faal ko am li Moodu Mustafa yàlla daal faal ko yëngu mali ma faal mali leer gorsu maandu de sore Serigne Cheikh Fall bayu góor yàlla daal faal ko yëngoo Serigne Cheikh Fall bayu góor yàlla daal faal ko yëngoo Serigne Cheikh Fall ay daara naar bi yaa moom ko sara Serigne Cheikh Fall ay daara naar bi yaa moom ko sara Serigne Cheikh Fall ay daara naar bi yaa moom ko sara la ilaha illallah la ilaha illallah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 Cheikh Ibra Fall lépp dunda maam sëñ Njaay suuru maam sëñ Njaay lambu maam sëñ Njaay ay waay ma far ma yaajal ndawal ma jambul Cheikh Ibra Fall jooli jooli yow yow la ñu nga woon ñu Bamba su boobaa sopp la la waalu la la nga woon nu Bamba nu reetaal dun loreel jaamee di may sa bigee kumba faal sowru faal yaa nu gindee may sa bigee kumba faal Zoro yaa nu gindee man di leer góor su maandoo day soore man leer góor su maandoo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 laa sëñ Bamba ne subhaanahu rabbal aliya man na man lam akun azunnu an yaamuna la la la la la la ma dëggal minni min daaxiratin wa baatina tam nga góor faal jitu góor faal damay ma say njaay la góor dee di dabe lay la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah ku jëkk moom ngay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 su bamba doon rasulullahi sarmada babul muridin ngay ababakar sadiqu nafiqu ahmada soral mami si am di xadi faal gil nga looy waay def leen borom daaru bayre faal mami Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar yakar nga noola coral maam say njaay ngunda maam say njaay daabay maam say njaay ay dem leen nañu magal maam Ibrahima Fall coral coral maam say njaay jarama sixira fa lamp abu rijaalullahi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 إلا لا لا إله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 doole biir faal ak weete adiya si lamp yal na ci jëriñ daraje si Ibrahima barki maam si yal na ñëpp am jàmm am di moo du mu na fi yàgg sëñ yal na fi yàgg daraje si Ibrahima Fall bi egg na sëriñ Cheikh Khadim Fall egg na ànd ak ay ganam ak ay bokkam xam ngeen ni tey li yendu ci stade bii ci doomu aadama ñëpp teg ni seen bët waaye jërëjëf Fall dañuy bëggoon waa ahdulaa yéen waa kër sunu maam Seydina Limaamu Laay nañu wàcc ñëw bu ko defee ñoom it ñi jël seen barkeelu seen digganteeg waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall nañ ko defe woon daaw ci kóllëre sëñ Cheikh Fall Khadim ak ñoom di fàttale ku bu baax gaynde ga laay laay bu leen neexee ngeen yëg bu leen neexee ngeen taxaw nii waaw kay waaw ah, nañ ñëw ana soxna yi na ñëpp ñëw ndeysaan lii lii lii moo di lii moo di wëllëre maam na boo gisee sëriñ bi naan kóllëre ak bokk lii rekk la l'islam kenn mënu ko séddoo dëgg ñëw na kon ñu nu may mbokki laay nii rek nañ ko defe woon daaw ñoom dem cam cër bu rëy ñu joxe leen ñu si sëriñ bi lii rek lañu bëggoon hmm. waaw waaleykum salaam laay laay bisimilah seet leen neen ko bëgg rek boo nen xat ci kaw dana demee ci kaw waaw ndeysaan may dañ soxna yi ñu ñëw acca yéen xam ni ngeen di placé de ndeysaan torkal ñu ngi ñaanal sàng ba Doudou Maxtaar Laay yal na yàlla may ko fan bu gudd wànd ak wér li ngeen def rey na lool ci nun lii dey bisimilah. asalaamualeykum wa rahmatullah. laay laay laay maxtaar. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara. di jiital ci biir nuyoo bi ak ziyaara bi. sëriñ xaadim faal mi nga xam ne suñu sëriñ la yëbra jóob karaman dafa wax ni di saxoo di laay laayi mel ne gaa yi bàyyi laayi ñii ka ñàkk caay-caay ñoo siggal di nga loolu di saxoo di laay laayi mel ne gaa yi bàyyi laayi ñii ak ñoo ka ñàkk caay-caay ñoo siggal limaamu mu ngoog dañ laay laay li mu def fii ci Kaffer ana beneen micro bi waaw bii ñu li mu def fii ci Kaffer ak déggoo ak borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax lii kat day ànd ba yàgg kon bu ngeen àndik surtout maam ci Ibrahima Fall bii nga xamante ni ñoo bopp leen lu ñu yëkkati te mooy baatub laa ilaha illallah alquran wax na ko xul yaa ahlal kitaab taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum allah na'budu illa allah wala nusuk fii shay'an yàlla taxaw yàgg jërë ngeen jëf dañuy sant yàlla bu baax ndax yàlla dogal na daaw teewoon nañ fi defoon fi lii amaat yéenay defaat ko di ñaan yàlla defal ñu ci ndam te jàppale ñu lii nag ñu def mënul ñàkk ndax suñu diggante ak waa kër Cheikh Ahmadou Bamba dafay diggante bu yàgg te dëgër koroog di Seydina Isa ruxullaahi génnee àdduna di waajuru Chérif Abdoulaye Diaw ak Chérif Ousseynoulahi Sëriñ Fallu Mbàkke dafa ne murit yëpp dem leen Kàmbereen ngeen jaale ji Seydina Isa ku fa sa tànk tegu sa yaram araamal na sawara digal rakkam ji toppoon ci moom sëñ Basiiru Mbàkke ne ko jiiteel délégation bi àndal ak Sëriñ Musaa ba mu ñëwee la ne sigil ndigaale njame di jaale aboori jaale najlul imaami sëñ Moussa Ka wax loolu yéen gaa yi laa yéen ziyaar si naa leen te jaale naa leen doomi lima kon sëñ Cheikh sëñ Cheikh Khadim Fall bu wootee mel nii wooteel ko lislaam bi dañ cee war a teew def ci li ñu war a def ñuy ñaan yàlla comme que waxtu yi dafa xat dañu war a yëngu dañoo bari ñu def ni ñu defoon rek ci daraja yonent bi bismillah laa ilaaha laa aw faal Cheikh Ibra moo guddee jaam ñi fande laa laa ilaaha illallaah fa laa ilaaha illallaah لا إله إلا لا فال لا إله إلا الله لا إله إلا لا فال لا إله إلا الله xemem la man moo ma doon sa baay faalo faw ji baatin lamp yaa may suturaal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal na ñëpp def ni ñu màggal maam bi Serigne Khadim Faale Cheikh Ibra Faal xemem la man moo tax ma ta bàyyi faale yi faw baatin lamp yaa may suturaal si xibra faale man ne xam naa ne yow yaa tax ba murit jariñu ci Seexu Bamba ña la jiitu ñoom xamunu xewal gi tuuru naa Sëriñ Saaliwu faale tamaam xewal gi tuuru na to dootul ku lekk naan ba man di faalu war la santati sakiro faaley xatal nga say nooney sakiro faal sakiro faal sakiro faal sakiro faal faaley xatal nga say noon ku la bañ du yaatoo faal eh. ci àddina ji ba keroog muy xëy faatu borom baax laa ilaaha illallaahu laa ilaaha illallaahu faal sikar leen la la la Baay Faal la ilaha illallah la ilaha illallah Faal yaay borom Tuuba Faal la la la Baay Faal laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah Baay maa ngi naan bu aw Baay Faal إله إلا الله لا إله إلا الله فال ذكر لين لا لا باي فال لا إله إلا الله إله إلا لا يفعل رجال الله إلا لا طيب لا إله إلا لا لا إله إلا لا يفعل Seex Baay Góor Sëriñ Moodu Amey Faal rijaalu laay ala Baay Faal yee wara baax Seex Mbàkke Seex Baay Góor Sëriñ Moodu du amee faal Sëriñ Saliou Faal Mustafa Faal mooy sa baayo Baay Faal dëggu ñu fee faal dañuy root ku saanda fees gañi bey faal ndeysaan la la borom baax be ku ñu feefal ñun dañuy roo ku saana fees nga ñibbey faal rijaalu laay xare ñun dañuy jee waaye gën lu góor du ñuy béy faal béy faal la la woo borom baax baam ba ji faal ba mi dal ni woon du sorey faal uy bay faal jugal taxaw ñu màggal mam seera faale borom baax baax daji faal ba muy door dal ni woon du sorey faal لا لا لا لا لا لا رسالي وفال نبي فال دسوري سيني داود بولانا نوي فال سيد خادم فال yàlla la ngay maamo sëriñ Xaadim Faal ñami yool faal du soore seeni taaw jébulu naanu faal faalu Mbàkke faalu lay lay laalaawo faalu Mbàkke faal ñami wol fal du soore seeni taaw jee bulu naan fal ndeysaan la la woola borom baax daal leen fal loxo yee faal mu naan ngooy faal lay lay laa laa laa borom baax faal la leen faal loxo yee xaatim ñaal mu naan ngooy faal la la oh. la oh, loxo ca kaw ñu màggal si xabib muhammadin wal ali wal asxaabi والمنزل وقام البسي ويا رادي على هلا ولك المداد وما جبه لك تنزل أنت دخالي والدخالي راديا وإليك خاسيا راجيا لك mu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

ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah

war leen ca penko war leen ca sawba lay lay lala lay dalma ana war leen ca penko war leen ca sawba lay lay lala lay dalma ngi ware war leen ca penko war leen ca sawba lay lay المليك الذي ذو الجبار المتكبر خالق البارئ مولى رسول لا اله الا محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله ilaa ilaa ilaa laay Muhammadu Rasulullaay ilaa ilaa ilaa laay Muhammadu Rasulullaay ilaa ilaa ilaa laay Muhammadu Rasulullaay ilaa ilaa ilaa laay Muhammadu Rasulullaay ilaa ilaa ilaa laay Muhammadu rasulullah la ilaha illa allah rasulullah la ilaha illa allah rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammadu nga yoo fi géej la ilaha illa allah muhammadu muhammadu la ilaha illa allah muhammadu nga yoo fi géej la ilaha illa allah muhammadu muhammadu la ilaha illa la la laay laay laay laay mawdaafur bil wujuudi wal xidami wal baxaay wal muxaalafa lil xaadisi wal waqdaaniya wal xudrati wal iraada wal sami wal basari wal kalaami wa annaa màggaleen bur yàlla wannoo wannoo laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah la ilaha illa la ilaha la اللهم باب البشرى كما لا إله إلا الله آمين بلا لا إله إلا الله مولانا مولانا مولانا جليل مولانا مولانا مولانا كبير كبير بصير ما له نظير سميع بصير كان برزا كل شيء فاني لا اله الا الله شيء واي واي واي jar na ko di la ilaha illallah jërë ngeen jëf kontaan nañ jaajëf yal na yàlla fay lu amin amin yal na yàlla fay lu leen sëriñ Cheikh Ndoye jege si sëriñ Cheikh Ndoye waaye yéen dey torkala ak Seydina Limaamu Laay nii ngeen ko defoon daaw def ngeen ko ko def déen waaye li mu de ak bokk sëñ Saliou fal ah tey Cheikh Ibrahima ndeke xajoo na ñëpp Cheikh Ibrahima Fall xajoo na ñëpp waaye sëñ Cheikh Xadim xajoo nga ñëpp sëtëtëtëtëtëtët waa léegi nag ah Serigne Cheikh Ndoye Serigne Cheikh Ndoye Ndoye Ndoye Ndoye anamu jug na yee leen ko dégguma dara de ah waaye jege si leen rek waaw maa ngi ñëw ci yéen ana micro bi ci yéen laa jëm si. ceet ceet ceet ceet laa kenn du ñoom lii de mooy yoon wi seex bi daa ngi nii de ceerno xajoon na ñëpp waaye sëñ seex xadim faal mii xajoon na ñëpp ndeysaan délégation sëñ Mor Talla Fall sëñ Amdu Roxaya sëñ Abdu Sini Mor Talla waaye sëñ Fallou Mbar ku siyaare bu baax sëñ Dame Fall mairie sëñ Dame Soda porte parole tabarkàlla ñoom ñëpp macha allah sëñ Amdi Talla sëñ Moustapha Fall Ngunda sëñ Moustapha Fall Ngunda Yacine sëñ Cheikh Soda ñëpp ñëw nañu ndeysaan waay sëñ bi ay waay waay jërëjëf Fall amin amin Fall amin Fall amin Fall amin Fall jërëjëf oh, la ilaha lii kenn mësu ko gis lii kenn dafa ma sàmm ana yi léegi allah cher euh, bu ñu paree micro bi dee dem fële ci ci karkat yi waaw waaw dañ koy yóbbu rek ndax ñoom foofa la ñuy dee allah anam joxal joxal ma micro bi fële waaw joxal ma fële ci Serigne Cheikh Ndoye waaw mu ah, wala ku koy nangu rek waaw ndeysaan joxal ma Baay Faal ñoom nag ñooy borom bis bi ñii waaw seetal ma foofu kuy jiite liggéey bi rek ah cey laa ilaaha illallaah lii di mos fi am mi ngi ñëw <coughs> waaw dañu seen Cheikh mi ngi ñëw mi ngi ñëw waaw waaye jërëjëf cey ñoo ngi ñaanal bu baax nag sëñ ci sëñ ji du Moxtaar laay waaw Cheikh Ndoy du mën a wër moom fii lay ne ñi ci des ñooy wër waaw waaw yii day wàcc siis yi ba pal Cheikh Ndoy moom day féete ci kaw ñii wër ne ci suuf moom du mën a wër dañ ko dimbalee loolu dégg ngeen waaw waaw daa ah, kay bëgg mu xaw a taxaw dafa metti rawatina wax turu yàlla waaye waa kër Seydina Limaamu tubaarkàlla jër leen jëf yal na yàlla fayal lu leen amiin ñëw gi ngeen ñëw rëy na lool ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye waaye rëy na lool Serigne Cheikh Khadim Fall. waaw Serigne lii de sëñ am di moo do mbenda waaw dana ko gis dana ko dégg. dëgg la te bëgg na ci lool sëñ Mountakha la bëgg ñun ñëpp ay bokk lañu. jërëjëf Thierno. waaw loolu Baye Ibra day wone yaataloog Serigne Cheikh Khadim Fall ni l'islam bi ñun ñëpp ko bokk loolu rek lay wone. moo tax. cër bii nga xam ne si suñu mbokk laayee ne am nañ ko ci bés bi ci at mu jëkk mu ni na leen ko jox ñu yëkkati baatu laa ilaha illallah laa ilaha illallah jërëjëf Baye waaw tey de laa ilaha illallah rek moo fi jib ndeysaan tubarkalla macha allah xam naan daal euh, ñu bàyyi xel rekk ni waaw si kër si nag saam faal bi mi ngi bëgg a tàmbalee bu jegee rek balaa balaa Serigne Cheikh Ndoye jóg ana Baye Karim Baye Bassirou Baye Ibra waaw sëriñ bi nag nee mi ngi sant mbokki taalibe yépp dëgg la mbokki boppam donga yi dayire yi fédération yi ak organe de presse yëpp bàyyiwul kenn ndeysaan ndax bés bi mobilisation bi. Mhm. ni ñu ko defee ba am ci réussite totale. tubaarkalla alhamdulilah. di seen rek tous les groupes de presse. waaw ndax bis ba ko tàmbalee ba léegi. dëgg la tubaarkalla télévision bi daal yëpp jaanu ci waaye sëñ Basiru dañ ni Serigne Cheikh Ndoye mi ngi waaj dañoo bëgg yéen jox la juróomi minute nu mu ko naan defee ci alxuraan.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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله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 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم صدق الله العظيم صل وسلم صل وسلم على المكلم ودور ياسين وصل وعائي على الرسول باب الوصول لنيل سول أحمر وعين صل دواما وزد سلام واشكر قلاماني وبلائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة خل السعادة لي باعتنائي قني اعتداء زدني اهتداء زدني اقتلاء بلا عنائي صف اختفائي بلا جفائي طيب عشائي طيب غدائي ذا الوجود كل بجودي واجعله جودي فوق الأداء هب لي ودانا قد للمراد يا من أفاد بلا كراء هب لي برورا كل الغرور عبدا سرورا لكل راد habli burura qilil ghurura abdan surana li kulli ra'i washkur kilami wahmad kalami bila manami wala mira'i sadd lisani نور تناني صف أماني وزد برائي زح زحا طيرا بقت ميرا فلتكفي جورا لمن يرائي أنقذ عيالي من الضلال وبالحلال خل طرائقني عتابا قد للكتابا واقبل متابا يا ذا اشترائي يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صل وسلم صل وسلم على المتمم وكل يعصم بلا انتهاء هذا اسم الجليل القائل حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ السالم ثم على المنجي سلام العاصم سألت ربي الحفيظ المانع أن كان عنا كل ضر دافعا بجاه سيد الورى والصحب عليهم أزكى صلاة ربي نحن الذين لا نلوذ أبدا إلا لربنا هنا ثم غدا أسألك العصمة كل أعصري من شر عين وكلام البشر احفظ جميع من تعلق بها من كل ما يفسد شأن ربها به ساخرا توابع جميعا حتى يصير كلهم مطيعا لين لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب لذنا بحسنك الحصين كلنا ربي وليا ونصيرا زمنا هادي اهدنا الصراط المستقيم ونجنا من الشيطان الرجيم ولا تؤاخذنا بشيء من الذنوب تفضل تفضلا واغفرنا كل عيوب نحن عيالك الضعاف يا جليل وعاملنا الرب باللطف الجميل أن نعفو كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديحة من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الوقت أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست وخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء وهو الذي يجحد بالعطاء بالابتداء كيف بالابتداء كفى بربي واقيا وحافظا من كل ما يكون شخصا لافظا يقي من استعاذ كل شر وكل ما يسوء في الدهر لله كل حمد والصلاة على الذي به تنال الهدى بركة مام شيخ إبراهيم فارغ ñaan ci kattun yàlla suñ Cheikh Khadim yàlla nga fi yàgg te wér yàlla nga fi yàgg te wér na ñëpp wax suñ Cheikh Khadim Fall yàlla fi yàgg te wér ndax moo nu may occasion bii ñu mën a ñëw fekk guddi moom ci Arafat ñoo ngi koy ñaanal sant yàlla xalifaam ak si na di sëriñam sëñ Abdou Fall moom sëñ Mortala Fall kon alhamdulilah kon jébbale nañu kàddu gi jërëjëf jërëjëf kon nag bismillah am yóbbul ma yóbbul micro bi la ilaha illallah waaw noonu la baaxe de sëñ bi daa bëgg Seex Ndooy jiga si ak ñi muy àndal sëriñ bi dafa bëgg sëriñ Seex Ndooy jiga si ak góor yàlla yi muy àndal ndax daal li war a def ci soo ba tey def nañ ko muy jàng alxuraan ak togg aw ñam joxe ko siyaarante ci bis bi ba ñetti waxtu jot mu bëgg nag nan ko daan defe sëñ Ibra Cuun ñu defe ko noonu mooy fii ñu taxaw Cheikh Ndoye dafa daan taxaw nekk jekk di tudd yàlla ba bët set wicc waaye ñu ànd koog njabootu Cheikhul Xaddim gi toog di sëriñ Làmp Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul taxaa mi ngi noonu toog ci image yi sëriñ Làmp Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassirou mi ngi noonu toog sëriñ Lamp Mbàkke moom sëñ Cheikh Astou Fall ñu bàyyi ko ci jëwriñu Cheikhul Khadim ji Cheikh Mouhamadou Mountakha yal na fi yàgg loolu te ànd ko wér da cee boole nag ka mu dénk quartier ba ñi leen kaa ànd ak ñetti lamp yi ma tuddee Cheikh Ibra Fall dem fekkil ma jàmbaare ji sëñ Abdou Khadim yi sëñ Cheikh Khadim ban xam ni bis bi ñor na ma sëñ Cheikh sëriñ baa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal bis bi nga yàgg koo taxawee ànd kook sa kilifa yépp waaye fi muy dugg see fi lay jëwriñu sëñ Mortala ji dugg see ñépp seen ko mel ni moom rek muy tenkam-tenkam yi mel ni ko yorul dara ca fees dell cey ma nga ne toog fekk fi doomam yu baax yee sëriñ Falilu Mbar bàyyi ko ci sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Fall Mbenda Modou Yaay Mbenda sëriñ Daam Fall nga ne toog ànd ak sëriñ Amdi Taala ak sëñ Daam Soda mu yor kàddu sëriñ bi ñu ngi nii toog waaye làng ak sëriñ Moustapha Fall mu sëriñ Mounda Yaasin Dooki ak sëriñ Makhtar Fall mu sëñ Mbàkke Modou Mbenda sëriñ Cheikh Soda Fall nga ne ca kaw ànd ak sëriñ Bassirou Fall Cokke ak sëriñ Xaadim Fall ak mboolem njabootu Cheikh Rafaal gi ñëpp a ci biir góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp dinañ la wuy si. dëgg la sëñ Cheikh da ngaa tànqam luwul kenn. lu xew ci woon wi nag wuy ji nga sa wërsëg ak sa jëmm ak sa njaboot ak sa mbooloo ku nekk xam ne ni suba la màggalu sëriñ Abdou Lahad gi waaye boo gisee tir bi mel nii mu mel si jikko jiyee. dëgg la. suba la màggalu sëriñ Abdou Lahad ku woote bis ñu ne suba la màggalu sëriñ Abdou Lahad mu mel ni mu mel. Cheikh Fall xoolal sa bopp kon góor yàlla yi jege si leen dañuy di tàmbali Cheikh Ndoye mu ñëw waaye sëñ Ibra Cuun waaw sëñ Moustapha mhm. délégation bi Serigne Mountakha yónni mhm. muy Serigne Lamp Mbacke doomam mu tudd ko maam Cheikh ma Fall benn Serigne Lamp Mbacke moom sëñ Moustapha moom Serigne Bassirou ñaar sëriñ Lamp Mbàkke moom Cheikh sëriñ Cheikh Astou Fall loolu lépp sëriñ ba Bassirou Mbàkke la ilaha illallah murit bu mag ba la daan wooye Cheikh na Fall uh-huh. saa yoo déggee murit bu mag bi rek na nga xam ne ku ko mën a wax ci sëriñ Bassirou mbàkkee nga ko déggee kooku xam ne kenn mooy Cheikh Ibra Fall uh-huh. moo waral ñetti làmp yii barkalla waaye xam nga looy gëmee loolu uh-huh. déggal li jëwriñ sëñ Tuubaa ji wax Baay Faal bu dëggal moo ma gënal sama jëmm sëñ mu Muntaxa mbàkkee ko wax ah. na murit yëpp ñaan mu yàgg fi te ànd ànd ko njabootu Serigne Touba gépp ak Cheikh Ibrahima Fall yal na fi yàgg te wér kon góor yàlla yi sëñ bi nee waxtu jot na yéen rek lay déglu da ngeen ci nekk ba mu ñëw jóg leen ay ca ndigal murit ndigal da ngeen ci nekk ba Cheikh Ndoye ñëw ne ci rek ku mën a tudd yàlla ñëw ci biir waaw ku mën a tudd yàlla na tudd yàlla jóg jox jox leen jox leen ba bët set wecc jox leen micro bi na tudd yàlla riir ay laa ilaaha illallaah ee waay la ilaha illallah ya gaba ndànk rek ndànk ndànk rek ndànk bii la bii la waa bii la moom la moom la dox leen dox leen wër leen wër leen nañ wër. kuréel bi dugg leen ci الله

la bafal la ilaha illallah la ilaha awarfal la ilaha la ilaha

la ilaha la la ya fallu fal la ilaha la la waaw waaw la la la, ooh la la, oh la la, ooh la la. Baba, la la la la. Hurrah! la رافع No, I don't parle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 لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا خليفة لا لا Tuba. لا إله إلا الله لا لا لا لا لا la la لا لا إله لا لا لا لا أكبر لا لا إله إلا الله لا إله Oh, my God. لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا

la la la la

Mustafa la la la la bi la la la la Fall Allah la la la la لا لا لا لا إله إلا الله لا إله la la la ilaha la la la la la la ilaha la ilaha la ilaha la la la Ja, hula, ha. إله لا إله إلا الله la la la la

ơi người mà

لا faal ayu góor faal faal bayu góor bayu góor ภาพ 怕 Purva na người mà la maam Thierno Diop maam wul sëñ bi maam Thierno Diop wul sëriñ bi maam Thierno Diop wul sëriñ bi

bima القرآن la la la يرفع لا لا لا لا لا Wow. Ah, yeah. Ah, you're hey, hey, wow. Gurvan ngay ma la ba yu góor ba yu góor fa na ngay màggal la la la la akbar la ilaha illallah لا إله إلا الله يا جبار لا يا سير بايو لا da da borom baax la ya newa la ya la la la la la ya newa la ya لا إله إلا يا جبار لا يا لا يا بايو بايو لا لا لا لا لا إله إلا يا جبار لا يا لا يا بايو بايو لا la ilaha la la ilaha la la borom baax la ya ya fal bayu go la la la la la ilaha la la ya ga baax la ya bayu go la ya na gay ma gay la la la la jagaba la ya Cheikh Bayo go la ya la ngay e, ma la la la la la la jagaba la ya ngay ma la ya ngay e, ma la la borom baax la ya fal bayu gor baax la da wa la la la da da la ya ga baax la ya de wa ya na ma la la ilaha illallah ay Ndour Fall ya ya Bachir Fall ya Yumna Fall la ilaha illallah la ilaha illallah ya masara fal ya inga fal la la wa la ya la la ya la la ya gabar la ya ya bashir fal ya haram la la wa la ya la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 thou the high la la Thou the high la la kenn ku ne fi nga taxaw bu fi jógee taxaw leen na kenn ku ne taxaw fi mu taxaw na ku ne taxaw fi nga taxaw sëñ bi day ñaan rek ñu continuer déglu leen bisimilah kon murit danoo jot ndigal ci sëriñ bi nee na ñu may ko ab diir sëñ maam làmp Mbàkke moom sëñ Moussa Basiiru mooy jul mooy jël kàddu ci turu sëriñ Muntaxa Mbàkke mi ànd ak sëñ làmp Mbàkke moom sëñ Seex Asu waaye mi ngi ànd ak sëriñ Lamp Mbàkke moom sëriñ Muntaxa waaye sëriñ làmp Mbàkke moom sëñ Moustapha Basiiru mooy jël kàddu ci sëriñ Muntaxa Mbàkke ci turu sëriñ Muntaxa ñaanal ñu ñu àggale sikar si amin ya rabbal alamin ya al qayyum allahu kawni bay faali ñëpp ak suuf loolu mooy ndigal li ولا يوجد